xew-xew bu mag luy xew événement bu ma kañ le 23 ak le 24 septembre fan lay xewee New York America

Tafa Baara Fall couture ak kan Fawzani couture ak kan Ndiouga Thiam bala may sa couture ak kan Joxaane couture ñu ànd ak seen jigéen nag kan ay Aïcha Boutilimique xale bu rafet boobu nga xam ne lu mu def moo gën lu mu deful bu boobaa nag Salam Diallo dina ñëw ndax namoon naa leen la ma defal ci Youssou Ndour doyuma damay ñëw dool dolli ko Amérique bu boobaa nag dinaa leen wax lan mooy paq ak mbax fii ay waay ba bi ay waay ragi dabarata kin kin taas li niñ leen ko waxee ba tey rek euh, ñu ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di seex Sarr Cheikh Sarr oh, nag euh, kenn ku nekk xam na digganteem ak Alima Ndione euh, Cheikh ñu ngi lay nuyu ma maa ngi lay fay di la nuy di nuyu internet yi di nuy waa waa waa waa waa waa DL TV Dakar ak waa eh, Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu gis la tey ci bésu Alima bi ban yëg yëg nga mbég ak bànneex goo xam ni mën na am fu muy door mais amul fu muy yem laa ci am euh, te xam nga bi si alima mu buñ ci gisul cheikh loolu loolu loolu neneen neneen lay demee mbég ak bànneex daal dañ ci am ñaan suñu borom sàmm leer gi fi ñëw yàlla aaral ko boppam yàlla yiiral ko boppam te it nag boole ko ci leer yi ñuy tiitaroo ci barke alxuraan yàlla ko yàlla def digganteem ak ki nga xamante ni moo di borom këram euh, wax na fi sànq seede yu rafet euh, jëm ci yow yenn relation en tout cas euh, man borom kër bu baax laa mais El Hadj Cheikh Tidiane moom a moo ma gën fuuf góor gu baax keroog biñ ko dénkee alima laa waxtaan ak benn kilifa mu ne ma jox nañ ko góor gu baax gu xam jigéen gu mën jigéen gu mën a sagal jigéen bu mën a teral jigéen sama xel da cee dal ma xamanteeg moom it mu nekk nit ku oyof nit koo xam ni fu mu toog kenn du ñëpp nit koo xam ni ci jàmm lañ ko xam ci ree ci kaf ñun dañuy toog sax des fois ma la benn affaire des fois dañuy toog nii sax egg euh, si war a liggéey 10 heures Cheikh naa yón jënd ndekki yónnee jënd ndekki yónnee ñu studio ñu ndekkandoo suñu ndekki kaf foore ku nekk bu bu wàccee kenn ku ne ci delluwaat ci itam donc loolu nit ku baax rek koy def waaye tamit xam soxnaam qualité yi ni ci moom muy fulla muy fayda muy jom nangoo liggéey jàmbaare ak maandu nekk nitu sutura donc loolu ni naan booy ànd ak sa congé da nga koy xam moom xam na xam na xam na soxnaam xam na macha allah valeur yi nekk ci moom xam na tamit euh, qualité yi nekk ci moom macha allah. Euh, yéen ñaar ku leen xam-xam ne seen pelloo dafa neex euh, da ngeen di jàppalante lu bëree bëri seen liggéey jamono yi nga xamante ni Alima toog na ñëwul ndax yàgg na gisuñu ko ci rajo bi. Mm-hmm. lan moo la gënoon a manqué ci moom. wéet naa sonn na. parce que des fois moo naan daan jàppale ci yu bëree bëri bëri xam nga léegi jëm naa mag taxawaay bi day xaw a métti xam nga léegi mag la paala donc boo gisee nga bëgg taxaw 10 heures ba 14 heures ñun suñu animation amul toog ñun da ngay taxaw 10 heures ba 14 heures soo amee sa pose ci ngay mën a wàcc dem lekk benn affaire wala naan café ñëwaat nekk ci donc loolu bu fekkee da am kenn ko xam ne moom ngay alterner bu ñëwee benn da lay bu ñëwul day métti ci yow beneen bi ci tege mooy que ne euh, maanaam entente bi ne ci ñun dialogue bi nga xam ne fu sa waay sa morom waxee rek

bokk benn organe bokk benn plateau mais da nga gis ci plateau bi ñoom ñaar boo amee accès du dëgg da nga xam ne ñi neexoowuñ da nga gis ak defante ci biir da nga gis ay suuxulante ci biir da ngay gis kenn ku nekk di wane ne man la mais boo xoolee tubaar fakkal la je touche du bois man ak Alima suñ nekkee di ngay gis ne kenn ku ne dafa yéene moromam kenn ku ne dafa dencal moromam cofeel kenn ku ne dafa dencal moromam mbaax loolu mooy tax liggéey bii di neex te bu melee noonu bu fekkee ñaari xol yi bëggante nañu soppante nañu lii génn ci ñoom di génn nit ñi dañ koy day neex nit ñi force mais bu ci amee ak woroo wala ak ndencante wala as tuuti ngistal bu ci nekk rek du saf nit ñi donc loolu moo nekk suñu biir te loolu nag dañ koy sant yàlla mi ñu boole ñaan yàlla yàlla gën ñoo ñagal ànd bi yàlla gën ñoo sàmmal ànd bi ba mu dem ba am yu fi boppam ma am sama yu fi bopp waaye teewul ànd bi di continuer conseil bi nga xam ne moom nga koy jox ci sëyam ndax gis nañu sëy yu bari day am problème dama koy wax bu ñu waxee artistes yi man la xëy na ñoom ñoo siiw waaye yi fi am problème bari na yan conseil nga koy jox ci digganteem ak borom këram ak sëyam. incha allahu taala incha allahu taala danañ màgget incha allahu taala danañ màgget jëkkëram baax na alima baax na te ay ay mature la ñu xam naa alima xam naa borom këram. xamna ni incha allahu taala dinañ mag dinañ màgget bu soobee dinañ dem ba fekkee si di njëriñal sët ak satta euh, démb gis nañu ben soxna buñu takal wujju mu daldi yakati kër gi yeb ñen ñi nak ñu ngi dal ci kaw goor ñi na yeen da ngeen xawa doy waar gis nga vidéo bi borom pel bi <laughs> non lool nak wax deug yalla euh. ginaaw jëkkër ak jabar yoy xawma len xawmu luñu dund bay doorante pel wala ñuy toj ak pel lool duma ci mëna wax mais gaay de nañ dañ yeen da ngeen bëgg tak goor ñi dañoo wara a tak yi ah mais loolu wax len ko yalla loolu kay leen koy wax yalla rek. mom mi digle kaay. ah loolu wax len ko yalla Mansour Diop bi ngi ni mom dalee len ci todd <laughs> ah ki moy froid 2000 kuko gisul deg nga ko sunu liggéey ni ngi aju ci lepp li nga xam moy climatisation mo xamé installation la maintenance réparation remplacement wala électricité. bepp njàqare bu ngeen mënti am ci sen cœur wala ci sen seen kay froid 2000 moma ci doy. Nous nga au 77 554 54 49. Nous mobile fu ngeen munti ne ñu teew fajal leen seen soxla climatisation. moo xam installation la maintenance wala dépannage amul benn marque bu ñu ci jaaxal. bu leen nangooti confier n'importe qui un climatiseur nous sommes une équipe d'experts jeunes motivés et très dynamiques. 3 2000 téléphone 77 554 54 49. Nous sommes à la cité et Dakar. Vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales.